nationale lañuy ñuy daal ci euh, dem kañu fa yóbbu wala tax ñu fay dem Guy Marius Sagna moom naka daal dinay àddu waaye tamit yëkkati ay euh, kàddu daal di koy jëmale ci ki nga xam ni moom mooy Antoine euh, Félix Ndiome nag ku ne xam ne ne ni ki tey lañ doon euh, voté euh, budget du ministre du pétrole et des énergies di ki nga xam moom mooy Antoine Félix Ndiome moo waral ki nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna daal di fay yëkkati ay kàddu dëggam waaye itam daal di fay taxaw daal di jokkar bi baaraam ki nga xam ni moom mooy Antoine Félix Ndiome la ko waral nag mooy ci wàllum courant bi nga xam ni cher na lool lool te askanu Sénégal ñu bëri di ko ko daal di euh, jooytu lool lool ba tax na ca kanamu euh, ministre ba rek ci la daal di ci la Antoine ci la ki nga xam mooy giimari Marius Sagna daal di yëkkati euh, yooyu li kaddu di xamle que ne courant bi cher na lool aussi suñu demee ba États-Unis di ñu may xaalis pour ñuy jënd courant mu nekk dugal ko suñu ay dëkk ndax gis nañu Sénégal dëkk yi nga xam ne dañoo daal di reculer courant pour ñu am ko c'est tout un problème am na ci ñoo xam ne tamit euh, jafe-jafe boobile euh, dañ koy daal di euh, dund moo waral moom gii mari Sagna daal dinay lim ay dëkk yoo xam ne fay ci Ziguinchor ak feneen yoo xam ne amuñu li nga xam ne moom mooy courant mu nekk nag ab jafe-jafe gu métti goo xam ne peut-être fii Ndakaaru li ni mel jafe-jafe boobu li bëriwu fii waaye nag ca dëkk-dëkkaat yi rek li nu mel lañ fay daal di nemmeeku ba tax na moo tax gii mari Sagna foofu noonu ci assemblée nationale moom honorable député daal di yëkkati daal euh, kàddu kaddu plaidel euh, ñooñu li que ne euh, moom Antoine Félix Ndiome na ci daal di bàyyi xel bu baax baax na suñu demee ba États-Unis duñu may xaalis pour ñu daal di mën a fay wala pour ñu daal di mën a jënd li nga xam ne moom mooy courant ba tax na nee na boobu li xaalis pour mu daal di ñu koy jox il va falloir ñu dundee subvention yi nga xam def nañ ko nga ci l'électricité moo tax courant bi cher moo waral loolu nag les États-Unis euh, daal di euh, xamle que ne subvention yooyu faw ñu dindi ko euh, ci wàllum électricité ndax li ni moo tax courant bi jeex léegi courant bi cher boobu la nag suñ ko dindee mën naa ni ñoom dinañ mën a dugal xaalis boobu la pour ko mooy moins ñu daal di jàppale dëkk-dëkkaat yi et suñu demee ba États-Unis di yëkkati xaalis di ko jox là aussi yàpp problème mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni moom l'honorable député Guy Marius Sagna daal dina koy plaider foofu noonu ca assemblée kanamu ki nga xam ne nag euh, moom mooy euh, Antoine Félix Ndiome ba tax na euh, moom nag Coura Mbacké sax dal di yëkkati ay kàddu moom sax guy mu ngi doon wax que ni bu leen neexee ngeen saaga ma bu leen neexee ngeen saaga ma ndax moom xam na ne que katt kat ni mu janoo wala ki nga xam ne moo nekkoon ci kanamam aussi di yëkkati ay kàddu. peut-être yooyu les kàddu euh, mën na koo génne moo waral nag moom euh, Guy Marius mu xamle que ni euh, su leen neexee ngeen saaga ma parce que da ngeen fee nekk teg pour défendre ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi maanaam ku leen wax dëgg rek ngeen daal di jug daal di yëkkati ay kàddu yu ñaaw daal di ko koy teg moo tax nag moom mu daal di anticiper loolu yi leen ne bu leen neexee ngeen daal di ma koy def mais n'empêche dinaa wax rek la nga xam ni askan waa Sénégal jamono ji ña ngi koy daal di dund rawatina rawatina ci courant bu cher bi comme que euh, moom Antoine Félix Ndiome la ñu dalaloon kon ci wàllum courant lañ waroon a euh, mën a addu moo tax moom euh, Guy Marius rek daal di addul Sénégal yi nga xam ne amaana seen baat mënul jëm ca kaw amaana Sénégal yi nga xam ne seen baat aussi mënul ñëw foofu noonu ci assemblée national comme que moom. moom mooy le député du peuple euh, peuple bi la fa nekk peuple bi la fa war a nekkal moo tax moom guy la nga xam ne rek peuple bi ña ngi koy joytu moom day daal di taxaw rek ngir euh, daal di euh, défendre loolu le moo waral ci kanamu Antoine Félix Diome rek mu daal di yëkkati yooyu le kaddu mais gis nañu ba mu yëkkati yooyu le kaddu moom nag Koura Macky honorable député aussi Koura yi daal dinay ñëw aussi daal di jël temps de parole am jox ko ki nga xam mooy Guy Marius Sagna suñ la jox ko nag mooy que session à la de l'Assemblée euh, nationale bi nga xam ni moo amoon euh, ndiki tey ab échange nag bu euh, métti la ñu daal di gis ci député Koura yi ak ki nga xam ni moom mooy député de l'opposition di Guy Marius Sagna ca vote du budget comme ni mu ko waxee tantôt du ministre du pétrole et des énergies Antoine Félix Diome ci la Koura Macky nag daal di génn ñëw taxaw ci baar bi daal di euh, réagir waaye tamit daal di tontu euh, ki nga xam ni rek moom mooy Antoine moom mooy euh, Guy Marius ci accusation yi nga xam ne rek daal dina koy def ci le ministre Antoine Félix Diome ba tax na moom nag Kouramaki député benn Bokk Yaakaar député nekk membre aussi ci benn Bokk Yaakaar daal di jël kaddu rek foofu nag ci assemblée nationale daal tontu critique yi nga xam ne rek opposition bi ña ngi koy daal di jël rawatina ki nga xam da koy daal xam ni euh, moom mooy euh, Guy Marius Sagna moom naka daal dinay euh, défendre le ministre du pétrole le ministre du pétrole et des énergies Antoine Félix Diome waaye tamit daal di koy tagg ak gërëm ci euh, kanamu ni euh, nga xam ne ñoom ñooy euh, député yi ba tax na rek moom Coura yi daal dinay addu jëm ci accusation yi nga xam ne Guy Marius Sagna dina koy def waaye nag nee na xam nañ bu baax a baax ana ñan ñooy dem foofu noonu ca étranger foofu noonu à l'étranger maanaam à l'extérieur di fa ñaan li nga xam ne moom mooy ay koppa di fa ñaan xaalis mu nekk ay mbir yoo xam ne ay kàddu yoo xam ne moom Coura Macky yëkkati na ko waaye tamit di xamle que ne ana kan xam nañ bu baax a baax kan mooy dem ca diaspora bi kan mooy dañ ca diaspora ba rek di ñaan li nga xam ne euh, moom mooy euh, xaalis waaye nag nee na moom mooy tontul ki nga xam ne moom mooy euh, maanaam waa gouvernement bi moom moom daal na daal di taxaw temb rek ngir daal di leen di tontu ci kàddu yi nga xam ne rek dinañ ko daal di yëkkati daal di koy teg euh, ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, gouvernement bi maanaam surtout opposition bi lay daal di xamal lool yi le mu nekk nag ay kaddu yoo xam ni euh, kuréel mag yi daal dina koy yëkkati daal di tontu accusation yi nga xam ne rek mu nee na Guy Marius Sagna def na ko ci Antoine Félix Diome mais nag temps de parole am tantôt ma ngi koy wax ne Guy Marius Sagna la ko daal di jox kon on peut dire que ne la ko daal di jox ndax lan ndax bañ ko joxee temps de parole la daal di taxaw tontu ko ko li mu koy wax après bu pare daal di dem toogaat toogaat place am mu nekk nag ab mbir moo xam ni ñu bëri rek ña ngay contesté euh, loolu leen ndax ab euh, ki nga xam mooy ab député euh, surtout bu dee député à l' assemblée nationale kon peuple bi nga fa war a nekkal lenn nga waroon def suñu joxe sa temps de parole mooy lan. addu loo xam ne amaana sénégalais ñoo leen ko ñoo la ko jox comme jóbbande comme ni ko Guy Marius Sagna defee comme ni ko keneen a keneen aussi euh, defee mais suñu gisee euh, ñu jox la temps de parole aussi nga daal di taxaw euh, tontu li ngay tontu après nga demaat toogaat foofu noonu maanaam askanu Sénégal lan la fa ki nga xam ne moom la Coura Macky teewal foofu lee député bi nga xam ne Coura Macky maanaam ku ne xam ne ne ab gox day am député député bi maanaam gox bi nga xam ne Coura Macky mu la fa teewal dalay leer ne gox boobu noonu am na ñoo xam ne am nañ ay jafe-jafe ci su wàllu courant ak courant bi ni mu jamono jii ni mais ñu gisee ñu jox la ab temps de parole aussi nga daal di tontu ab député sa moroomu député dem peut-être loolu tamit gis-gisam la mais tamit bu ñu la tegee ci ab ab ab bërëb mën nañ gis que ne leneen rek lañ doon fa xaarandi eh, ci yow ba tax na moom Coura Macky nag pareewul benn yoon ma ngay daal di eh, affirmer di wax mais nag avec eh, da ko doon kaañoo waale ki nga xam ni moom mooy moom mooy gimari Marius Sagna ne ko Antoine ab bandi la ab voyou la ab euh, mana ab saay-saay la di ko daal di xamal ne ko kat Antoine lii la kon moom mën na euh, défendre li nga xam ne euh, moom mooy boppam waaye loolu nag moom Coura Macky ma nga bëgg a wane que ne Antoine ab nit la koo xam ne kenn du ko laal kenn du ko touché kenn du ko nga def dara parce que capacité mën am na li nga xam mooy mën-mën défendre euh, boppam loolu nag euh, yooyu les déclarations mu daal di koy def euh, jàkkaarloo ki nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna daal di ko koy xamal bu baax a baax ci attaques yi nga xam ne mi ngi ko doon def contre ki nga xam ne moom mooy le ministre di Antoine Félix Ndiome ba tax na am na ku nekk ci li ñu daal di koy jëlee ah, allo.